kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm njabootu boppam gi nga xam ne njabootu borom saam kenn ku nekk ci ñoom ki ko fi teewal teew si na fi mbaa mu yebal fi ñu ko fi teewal te sax ñi ko fi teewal ñi ci ëpp dañ fee teew si kon sëriñ bee ngi sant ñëpp ndax xam nañ ne dox bii muy dox ak fii mu jëm ñi mu àndal ñi ngi koy topp ci ni nga xamante ne bi doon la ànd ñoom di liggéeyal ki nga xam ne moom lañ bokk bokk bëggale war a liggéeyal muy sëriñ Borom Sam kon sëriñ bi nee na mu ngi sant ñëpp di sant ñi mu ko bokkal ñëpp waaye nag di sant taalibe yi ndax lu fi taxaw walla mu sax fi rek taalibe yi la ndax fii moom benn sëriñ boo xam ne am nga lenn looy def lu di sant taalibe yi ñu lay liggéeyal di dem ci say tool ak di fab alal di la ko jox comme ci doon ku nekk soo amee laneen it loola moom yaa ngi ci boole kon loola moom nañ ko fonk te jàpp ko moom sëriñ bi nee na mi ngi sant taalibe bu baax ndax kat xam na xel ni loo fi gis rek taalibe ko fi def keneen ku fi di def sax bëgg bëgg na ak taalibe ba tax mu def ko kon taalibe yi ñoo fi def lépp kon nañ leen sant bu baax te gërëm leen tey ni ma koy waxee waxtu wu fonk leen te jàpp leen te nawloo leen te ànd ak ñoom ngir sëriñ Touba jox leen cër yi ñu moom kat nit taalibe yi taxawee temm ci ku ko fonk ñu fonk la moom it noonu la taxawee ci ku fonk taalibe yi ñu fonk la amul lenn lu ñoom ndax Sëriñ Tuubaa bu Rasuul dafa waxoon ne sama mbokk yi amuñu lu dul man taalibe yi awma lu ñoom kon nag ginnaaw sëriñ bi amutoon lu dul taalibe yi nañ fonk taalibe yi te jàpp leen sëñ bi nee na nañu góor góorlu bu baax a baax te fonk taalibe bañ leen a fàtte ànd ak ñoom te yàlla rek a tax di nuyu ñii nga xam ne ñoo fi nekkal nguur gi tàmbale ko ci préfet mii nga xam ne fu ñu fu ñu jóge ci ab liggéey mi ngi ànd ak ñun buñ demee ba ñun liggéeyuñu sax lu mu xam ne njariñul kër gi moom dana taxaw def ko ñun xam nañ ne am na taxawaay boobu ci kër gi amit na bëgg-bëgg boobu ci kër gi di sant Abdou Mbacke Ndaw mii nga xam ne ab jarbaatam la te nekk ak moom ci dëkk bi tey liggéeyal dëkk bi ñuy ñaan yàlla sa defal ko tawféex di santit Gallo Ba directeur ndax moom it bu baax la doomam la tey liggéey boo xam ne sëriñ bee ngi ci nekk ànd na ak moom ba ci ni ko gone yi doon waxee léegi lii nga xam ne moom ñu wut tiim keroog bi ma ko jotee téléphone képp ci turu sëriñ bi ndax ma ne jarut ngay ñëw jarut ngay yónnee si bu soobee yàlla liñ ci war a def danañ koy def te defe ne ko noonu kon moom ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal di leen yóbbante ci président di ko wax ne na ñu geestuwaatal suñu mbokk yi nga xam ne amuñu lu ñoom te ñu nekk ci ginnaawam muy Abdou Mbacke Ndaw mi ak Gallo mi nañ leen jàppale ndax ñuy kët ku leen jàpp jàppale nga dëkk bi kon sëriñ baa ngi leen leen dénkaat leen dénk madame mbay ak euh, Abdou Karim Fall mboolem ñoom ñoo ñi nga xamante ne bii dañoo bokk ci kër gi te di ko jàppale na ñëpp jàpp ci ñoom te xam ne ñoom ñoo ñii kët ku jàppale jàppale nga sëriñ bi leneen li ci des mooy nawet baa ngi nii di dugg si sëriñ bi nee na man nañu ne ñi ngi naan taw na fee taw na fee te dégg bu ñu fenn foo xam ne fii ndax ñi ñuy dégg ñuy publicité ay ay ay jiwu sax jiw ya ñuy ya ñuy tudd ay juróom kilo la ak fukki kilo loolu la moom jëriñu kenn dara kon jiw yi nga xam ne dañ ko doon jox nit ñuy liggéey nañ leen ko jox laneen la ci des nag mooy ñun buñ ñu ko joxul nañ dem bay ger da dugub ak ñebbe ak laneen ndax lu ci doon lu nekk am na njariñ ndax kat nañu leer ne fii ñu nekk moom ci réew mii ñu nekk lenn lu nekk nit mën na ko fee def ba jariñu ci bu fekkee ne gerte rekk du ab liggéey suñu amul gerte nañ bàyyi laneen te liggéey yi waaye daal sant nañ leen ñu nit ñi di leen jox aw jiw di leen jox ab engrais bu ñu leen ko joxul ñu bàyyiwaat lépp ci loxo yàlla ndax maa ngi dëkk bi yëpp xoddu maa ngi dallahi baas li ci doo loxoy doomu aadama yi moom mën naa jeex waaye li ci loxo yàlla du jeex kon nañu góorgóorluwaat ci nit ñi te yërëm leen ndax bu ñu leen fabee teg ci kanam fal leen dañu leen a fal ngir ñu taxaw ci kanam doomu aadama yi taxaw ci soxla yi doomu aadama yi waaye nag duma nit ñeeg tëj nit ñi taxut ñu fal kenn nañu dimbale nit ñi te yërëm leen te jàppale leen te yàlla tax lii rek mooy li am solo sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp taalibe yi yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal sëriñ bi nee na mi ngi sant doomam xaramin Mbàkke ndax moom it taxaw na ci bis bi taxawaay boo xamante bi kenn ku nekk xam na ko moom ku ko wax ak ku ko xam nga ko ndax kenn ku nekk ñun xam na lim ci lim ci liggéey ak lim ci jàpp ci bis bi kon mi ngi koy sant ni mu sante njaboot gii nga xam ne ñoo nekk ci kër gi kenn ku nekk di màggal mi ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan sa borom dafa ñu tawféex di ñaan yàlla may ñu jàmm ak sutura may ñu nawetu barke ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa kat soxna Fatikan Bousso ñi nga xam ne ñëw nañ fi ah, sëriñ Cheikh Bousso seen naa ko léegi ci kaw ñoom it ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu leen baax di leen gërëm waaw ah, sëñ Alaaji Fàllu Bousso ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen nuyu te xam ne ñoom it jàpp nañu bis bi Ah. maître Madické Niang ngi tam na fi ay ndaw yoo xam ne dañoo yéex a ñëw léegi lañ fi ñëw Serigne Souhaïbou bu Mbàkke jiite ko ñoom it dañoo wax ne incha allah moom ci boppam mi ngi woon ci yoon wi ñëw waaye nag dafa yaakaaru fekke fi ta sii ñu nga xam ne ñu ngi koy def muy cérémonie mi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla sa borom defal ñu jàmm sëriñ bee ngi sant waa daayira bi nga xam ne ñoo taxawal bis bii di ko ci liggéeyal liggéeyal bi ñu koy liggéeyal te sëriñ Abibou Mbacke jiite ko mi ngi sant ñëpp di gërëm